moo nekkoon match retour bi Sénégal dalal ko dañoo témboon ak def 0-0 waaye ba ñu demee ba ci tir au but ci la Sénégal am ndam kon Sénégal dem na ca segg gu mujj ga maanaam dernier tour éliminatoire CAN U23 Sénégal nag Mali lay jàkkaar lool mu war a nekk match aller ak nañu ñaan nag Sénégal am ndam ca match yooyee ba noppi dem ca CAN U23 bi nga xam ne ca Maroc lañu koy amale ci fàttali ba léegi Ligue 1 bu Sénégal ñoo ngi ci ñetteelu neex match yooye yëpp nag seize heures et demi maanaam quatre heures et demi lay door waaye match yi ñu cey gën a xaar bokk na ci Tëngéej football club ak génération foot première bi mooy Tëngéej mooy dalal génération foot kon match boobee dina tàng jër beneen bi moo di Casa Sport ak Gorée gore mooy fekki Casa Sport jaraaf it war na jàkkaarloo ak Synapse jaraaf moo koy dalal AS Pikine war na jàkkaarloo ak jàmbaar AS Pikine mooy dalal jàmbaar la Linguère de Saint-Louis moom mooy dalal Dakar Sacré-Cœur stade de Mbour moom mooy jàkkaarloo ak Douane match yooyee nag tey jii moo soxal Ligue 1 bu Sénégal ñoo ngi ci ñetteelu bëccëg bi kon gaañi xaar leen ko dem stade jàppale seeni club ñu door revue de presse bi dooree ko France fek fa l'équipe waa Paris la fësal ca wu njëkk wa Paris bu ñu lay dalal dañuy bég lool ngir may la waaye dañuy bég lool it ci dalal googee ñu lay dalal démb trois la ñu dalal match ba nag bëri woon na ay bit lool ndax pari dugal na quatre bit trois dugal trois bit match ba jeexee quatre trois waaye match boobee nag trio bi doxal nañu muy Mbappé Neymar Lionel Messi journal bi nee na jamono jii ñett ñooñee kenn mënul leen a téye waaye défense su Paris boobee nag war nañu ko xoolaat ndax démb comme tamee bit ya bëri na lool loolu la journal Paris ma ngay dëggal boppam ca bopp classement ba ndax lance mi topp ci kawam Paris juróomi poñ la ko rawee kon Paris ma ngay deferaat toogaayam ca Ligue 1 ba loole la journal bi xam le ñu jugee l'équipe 1 jël l'équipe 2 moom waa Strasbourg bu Habib Diallo la fësal ca xët wu njëkk wa démb dañoo def jaloore ndax Marseille la ñu doon dalal Marseille mëne leen ñaari bal ci dara bit ba njëkk a am ca mat boobee sax doomu Sénégal bii di Bamba moo ko dugal ñaareelu bit bi ki ko dugal doomu Burkina Faso la mi ngi tudd Issa Kabore waaye ba ñu mi-temps wee waa Strasbourg dañoo soppi seen xarkanam doxal tuuti ñu am benn muy 2-1 waaye ba ñu demee ba ca cëppaandaw ga ci la doomu France bi di Kevin Gamero égalisé match ba jeexee 2-2 jamono ji nag waa Marseille ñoo ngi ci guuta ndax kat ca Ligue 1 boobee ñeenti mats a ngi nii benn poñ képp la ñu ca am ndax laata démb ñuy jàkkaarloo ak Strasbourg gu ñetti défaite la ñu tegle woon démb ñu am match nul kon ñeenti match yu ñu mujj football ca Ligue 1 boobee benn poñ képp la ñu ca am jamono ji nag Paris ma ca bopp poñ la leen rawee ñoom waa Marseille ña nga ca juróomeelu place ba kon jamono ji ñoo ngi ci guuta moo tax journal bi nee na leen mardi match bu ama am solo ngeen am Tottenham ngeen war a jàkkaar lool te su ngeen ko dóorul du ngeen dem ca huitième de finale Ligue des champions bi te Marseille gii ma gi soppiwul xar kanamam dina jafe lool ngir mu am ndam ca Vélodrome buy jàkkaarloo ak totenaam match boobee nag vingt lay door léegi heure bi dafa changé li ko waral Europe ñaari waxtu lañ ñu rawee woon léegi nag benn waxtu képp lañu ñu rawee moo tax match yi doon am 19 heures léegi 20 la. jugee France wutali Portugal fekk fa record waa Benfica la fësal ca xët wu njëkk wa aigle yi dañuy naaw muy waa Benfica. démb Savès la ñu dalal dóor ko juróomi bal ci dara jamono ji nag kenn mënul leen a téye ndax ña ngay doxal ca Liga NOS bu Portugal muy waa Benfica ndax bi saison bi dooree ak tey jii ñoo ngi teewlu ci onzième journée fukk ak benneelu bëccëg. waaye déggaguñu muñal fukki match yi ñu am yépp dañu ko gañee benn match nul képp la ñu am kon jamono ji kenn mënut leen a téye waaye kaleen di tàggat di chimie ma ngay wax ci latéralam bii di grimal Grimaldo nee na Grimaldo nag su fekkoon may moom day yokk kontraam toog fii ci benn Benfica doxal grimal Grimaldo nag latéral gos bu mën la muy def la club yu bëri dañu ko bëgg ca Europe rawatina ca itali waaye nee na ko su doon may yow da ngay yokk sa contrat toog fi doxal ngi ci journal bi ñoom démb sant Santa Clara la ñu doon jàkkaar lool ndam demul ndam dikkul jamono ji nag Benfica ma nekk ca bopp classement ba juróom-ñetti poñ la leen rawee ñoom waa Porto kon Porto jamono ji doxuñu waaye bu dee waa Benfica moom ña ngay naaw ca Liga Nos ba ñu jugee Portugal wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay waa Atlético de Madrid la fësal ca wu njëkk wa beneen njeexintal bu yées loolu la surnal bi xam xamle bu Atlético de Madrid Cadiz la doon jàkkaar nit Cadiz am na but waaye ba ñu doxalee tuuti Cadiz dafa dugalaat deuxième but Atlético fippu nag ba égaliser 2-2 bit bi Atlético de Madrid njëkk am Joao Félix moo ko dóor défenseur bi dévier ko muy 2-1 ñu doxal tuuti Joao Félix dugal deuxième bitu Atlético de Madrid waa Atlético de Madrid gépp jàpp ne am nañu match nul waaye ba ñu demee ba ca cëppaandaw ga 98e minute ci la waa Cadiz dugal bit bi leen may ndam kon jamono jii waa Atlético de Madrid ñoo ngi ci guuta waa Real de Madrid tamit ñoo ngi ci journal bi tey jii dañuy jàkkaarloo ak Girona waaye Benzema nekk fa moo tax journal bi nee na Vinicius nag tey moo fa nekk attaque boobee moom moo fay seef match boobee quinze heures et lay door comme ni ñu leen ko waxee rek heure bi léegi dafa soppeeku match yi nga xam ne quatorze heures et la doon commencé léegi quinze heures et lay commencé. ñu jugee Marca yéenekaay jël AS yéenekaay moom it waa Atlético de Madrid la fësal ca xët wu njëkk wa semaine bii nag baaxul ci waa Atlético de Madrid ndax ñetti fan ci ginnaaw Bayer Leverkusen la ñu dalal. témboo ak moom 2-2 te ca cëppaandaw ga Atlético munoon na am ndam amul ndam démbit ñu jàkkaarloo ak Cadiz waaye ba ñu demee ba ca cëppaandaw ga ci la Cadiz am ndam match boobee nag waa Cadiz ñoo ca njëkk a mëne ñaari bal ci dara Atlético raam na ba def 2-2 waaye kat loole doyul ca cëppaandaw ga Cadiz dugal troisième but bi kon semaine bii ñu nekk neexul ci waa Atlético de Madrid match boobee nag doomu portigal bi di João Félix fës na ca lool waaye doomu Espagne Alvaro Morata yeggaliwul match ba ndax dafa am blessure waaye blessure boobe nag jural na njàqare waa Atlético de Madrid rawatina réewu Espagne di réew moomu dëkk ndax sunu diggante ak mondial bi li ci des matul weer Alvaro Morata génn ci blessure Espagne gépp waaye blessure Morata boobe dinañ leen ko toppal incha allah waa Real de Madrid tamit ñoo ngi ci journal bi tey dañuy jàkkaarloo ak Girona bu 15 heures jote quart jotee maanaam 3 heures bu tegalee fukki minutes ak juróom ci la jàkkaarloo waaye match boobee nag Benzema du ca bokk journal bi nee na Modric nag dellu si na ak Valverde waaye Benzema du ca bokk. waa Barcelone tamit ñoo ngi ci journal bi démb ñoom ca Valence la ñu demoon match ba nag miti woon na lool waaye ca cëppaandaw ga Barcelone moo am ndam Robert Lewandowski moo dugal bit ba am ca match boobee quatre vingt ci la ko dugal Barcelone am ndam lu ama am solo jamono jii may wax ak yéen nag Barcelone moo jël pee ca Liga Santander waaye Real de Madrid mi jël deuxième jamono ji tey jii lay dalal Girona ca Santiago Bernabéu match boobee 15 heures et lay door ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa esport Robert Lewandowski la fësal ca xët wu njëkk wa démb nag doomu poloñ bi moo sauvé waa Barcelone démb ca Mestalla yàlla Barcelone demoon match ba tàngoon na jër waaye attaquant polonais bi moo dugal bit ba am ca match boobee tax waa Barcelone am ndam lu ama am solo moo tax journal bi nee na ñetti poñ yii de oor la waaye attaquant bi ko dugal nag attaquant dëgg la ndax bit bi mu dugal bitu attaquant dëgg la journal bi nee na démb nag Barcelone gi ñu gis taxukaa baax ndax Barcelone démb kenn xàmmewu ko rawatina bu ñu demee ba yegg ca kàng ya Barcelone kenn du ko xàmme waaye nag am nañu ndam lu ama am solo Barcelone googee sax seen président bi mi ngi ci journal bi moom nag journal bi nee na li ci xelam te mu ciy xalaat moo di bu ñu yeggee ci weeru janvier mu jéem a dem ca Paris indiwaat Lionel Messi ca Barcelone mu doxal jamono ji président wu Barcelone bi mi ngi xalaat ci loolu. ñu jugee sport jël Mundo Deportivo Robert Lewandowski la fësal ca xët wu njëkk wa buteur bi de du kenn ku dul moom doomu Pologne bi démb moo may ndam waa Barcelone mu nekk ndam lu ama am solo quatre-vingt-treizième minute ci la dugal bit bi nga xam ne moo tax ci Liga Santander boobee mu am treize bit kon jamono jii muy meilleur bit buteur ca Liga Santander ba muy Robert Lewandowski waaye match boobe nag ñaar ñiy yeggaliwuñu ko muy Jules Koundé ak Eric Garcia ñoom ñaar ñëpp dañoo génn ci blessure waaye seen blessure yooyee nag mundoo nee na niriwul lu garaw waaye incha allah dara du leen ci ump dinañ leen ko toppal ñu jugee Espagne wutali Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport waa Napoli la fësal ca wu njëkk wa démb Sassuolo la ñu dalal wan ko ne ko duñu sa morom duur ko ñeenti bal ci dara nag doomu Nigeria bi fës na ca lool muy Victor Osimhen ndax ñetti bit la dugal ñeenteelu bit bi Kvaratskhelia moo ko dugal ndam loolee nag waa Napoli Diego Maradona la ñu ko dippe ndax su fekkoon mi ngi dund ba tey tey jii mooy nekk anniversaire am ndax la 30 octobre ci la gane si woon àdduna te tey jii le 30 octobre kon ndam loole moom la ñu ko jagleel muy Diego Maradona jamono jii nag Napoli AC Milan mi topp ci kawam juróom benn poñ la ko Napoli rawee waaye Barça tey jii lay football Torino lay fekki match boobee dix neuf heures quarante cinq lay door kon gaañi xaar leen ko waaye waa Inter doxal nañu démb. Sampdoria la ñu dalal dóor ko ñetti bal ci dara waa Juve tamit yeewuwaat nañu ndax ñoom it démb am nañu ndam lu ama am solo ca Lecce la ñu demoon ñoom waa Juve am fa ndam benn bal ci dara. ñu jógee Corriere dello Sport dem Torino fekk fa Tuttosport Fagioli la fësal ca xët wu njëkk wa gone gi nag ma ngay football ca Juve waaye gone gi démb dafa doxal. bi Juve di jàkkaarloo ak Lecce bit ba am ca match boobee moo ko dugal mu nekk bit bu rafet enroulé bu rafet la dugal moo tax journal bi nee na gone gi kenn du moom doxal na ca match ba dugal na waaye journal bi nee na démb yuufee gone yi ñoo ko boot ndax ki paas gone la ki dugal gone la ki paas moo di Samuel Ealing Junior moo pas Fascioli Fascioli dugal bit bu rafet moo tax surnal bi nee na ko Maximiliano Allegri yoon waa ngi nii kon jamono ji waa Juve reetaan naat nañu ginnaaw bi ñu amee défaite bu métti contre Benfica mu jëmoon ci Ligue des Champions démb gone yi doxal nañu muy Fascioli ak Samuel Eling Signor ndax ñaari gone yooye fës nañu lool ca jongante ba ñu jugee Torino wutali Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport waa Inter la fësal ca wu njëkk wa jamono ji nag Inter ay ñettam kepp la yor ndax match bu mu football jamono ji lu mu néew néew dina dugal ñetti bit Sampdoria la ñu dalal démb dóor ko trois 0 jamono ji nag Inter ña ngay doxal waaye kaleen di tàggat di Inzaghi nee na moom mu ngi bëggee jamono ji waaye dimanche nag am na match bu mitti